war a bëgg xaalis parce que bu ñu commencé madame yaa mais joxe na joxe boppam wane na yoon ministre moo moom joxe joxe boppam ne mais ak tous les maires du département de Bambey les douze maires ñoom ñëpp kenn ku nekk joxe sa participation jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi tamit di liggéey sans exception amul jigéenu affaire amul jigéenu fay amul jigéenu fay ñëpp amul benn donc jigéen ñi lii liggéey bu rëy bi jigéen ñi ñoo ko liggéey donc ñu ànd ak suñu coordonnatrice régionale muy Fatou Diagne madame Guèye ñu defee ko nag ci kanamu gouverneur dem jël collecte def ko régional bi yëpp ko mu pare nag ñun dañuy indi fii collecte départementale jébbal la ko wan la jigéen ñi lii la ñu def suñu paree nag ba def suñu remise symbolique ba pare soxla ko ci terrain bi nag quartier woo quartier goxoo euh, euh, maanaam commune Bambey yi douze communes yëpp euh, village ba gën a reculé ci commune yi bëgg nañ fa dugal suñu loxo egg xaar nag ñeneen parce que pareeguñu ndax yàlla mooy dogal def comme pareegul ñun tam ci ñu ko kon nekk lu ko madame day am ko parce itam nga xaw ñoo suufee dañuy sonn mais comprendre nañ bu baax ndax bi ñu waxee kenn ku ko donc ñu di gërëm na ci du ko mooy mooy nekk da ngaa yàq say nelaw kenn ku nekk da ngaa yàq sa kenn ku nekk da ngaa sa sa say say say say say say affaire ñëw jàpp ci liggéey kon su loolu jotee ñun dinañ ci sant dinañ la ci gërëm waaye dinañ ci sant askanu Bambey dinañ ci sant jigéenu jàmbaaru Bambey yi nga xamante ne ñu ngi ci bi te kenn ku nekk bàyyi sa itte ñëw jàpp ci liggéey bi muy Ngoy muy Baba Garage muy Kër Samba muy Dingaraay muy Caxar muy Gaawaan muy euh, muy Gaawaan muy Mbogom euh, donc su ma juumul ak Ndondol ñëpp ñëw nañ dugal seen loxo kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci turu madame la ministre Ndeye Salimata Diop donc kon présentation baa ngi nii madame la ministre kon kii moo nekkoon suñu coordonnateur coordonnatrice régionale madame Guèye Fatou Diané kii moo nekkoon coordonnatrice euh, départementale bu bu Mbacké man maa nekk coordonnatrice départementale bu Bambey honorable Yakou Kane moo nekk tamit point focal dama naan sax nas régional parce que moom bi ak jigéen ñi nga xam jigéen tàcc leen seen bopp parce que yéen a ko mami defal mami mami Gueye mami Gueye mami Gueye mami Gueye am na liste bi rapidement kaale nii kaale nii bu ngeen di xaw a di xaar nii ñëwee nii dafay doon ñëw jaar. ñëwal Fatou Sène ñëwal jege si ana ale ana grand ale voilà da ngeen di ñëw nii day def visite. day def visite dañ koy suivre rek dañuy suivre rythme bi rek fu mu jaar ñu dem. d'accord d'accord.

Malick mayal tuuti sa waay gisul la jëlul hmm? jox danga koy pour Covid bi moo ko tax a bu ngeen di dem marché yéen suñu bopp jigéen ngeen jël masque yi bu ngeen nekkee si seen kër yi ngeen sensibiliser xale yi ñuy raxasoo ak saabu bu ñu demee ba ñëw waaw toujours ñoo ngi ñaax nag li loolu laa amoon ci baax merci rek ni tàng na.

ak bu noobul nag moom mënta weesu di di di jiital ci nuyoo bi Fatou Diané di ci jiital préfet di ci jiital euh, coordinatrice muy Soxna Fatou Sène maa ngi ci jiital nuyoo bi maa ngi ci jiital jigéen ñi bu noobul bii ñu def nag moo waral tey suñu taxawaay bi parce que tey bu nu nekkee tey ci commune bi président bëgg a liggéeyal président Macky Sall mu am loo xam ne sant nañu ko ñu def ko tey ba mu ba mu mat ñu war a taxaw fii tey war koo jox tey jigéen jigéen ba war ko jox def département bi kon yaakaar naa loolu ak ak ak bu noo léegi nag ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di gërëm merci beaucoup merci beaucoup merci Maïmouna Diallo merci beaucoup léegi ñu jox Astou Pouye rapidement deux minutes pour les Astou Pouye Astou Pouye

Bachir Diop mi nga xam ne ñoo jiite suñu masque yi tey def lu rafet ci biir commune bi ñu war koo lawal ba mu wat ba mu ba mu rot ko ci commune ndax xeex rek corona la ñu ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko jóge te yàlla nañu indi tëdd bu baax a baax a baax yàlla na mu tëddee mu gën a waaw ñu ngi ñaanal Fatou Seye yokk ak wër ak équipe bi mu àndal yëpp ak bépp jigéen bu taxaw fii tey ba ci jigéeni national ba ñu ngi ko ñaanal yàlla yal na leen yàlla defal jàmm moo leen di ko di ñaanal waa waa média yii nag merci beaucoup Badiane gox yi ñu jox gi nga Bassirou inspecteur Bassirou la parole. wa rahmatullah bi yoo ci turu inspecteur départemental de l'éducation et de la formation jiital ci préfet du département daanaka suñ kàddu moom mënoon na ko yóbbaale ndax moom mooy président comité départemental gestion crise bi gestion pandémie bi mais comme fan yi aussi njàng mi ak njàngale dafa xewle ndax dañu jëm ci waajtaay ci jiwaat école yi ci classe yi nga xam ne ñoo war a def examen

olof dane bay ci sa wewu tànk ngeen di jàppale aussi président de la république te moom mu yayoo njàngale mi lépp lu ci jëm tegu ci ndoddam boo leen ñëwee ci occasion bu mel nii ngeen confectionné ay masque ànd koog seen coordonnatrice départementale madame Fatou Diané ne madame Guèye du nu mën ñun aussi en tant que bras technique gu préfet ci wàllu njàng rafetlu ko parce que masque yi dina law ba ci école yi te protocole bi juróomi masque la wax par élève mais yaakaar naa ne lu mu gën a bëri gën a baax comme ni ñu ko waxee rek ku ciy jàpp ñun nga jàppale préfet nga jàppale président nga jàppale ñu rafetlu seen initiative masque yi dafa ñëw au moment opportun ndax yéen ay parents ngeen avant tout te boo leen dugalee ay masque ci askan wi jàppale ngeen parents yi ci loolu nga xam ne seen xale yi dañ ko war a jëfandikoo pour ñu mën a dem école ci condition yu baax yi nga xam ne danaan mucc ci doomu jàngoro te geste barrière yi porter masque daf ci am solo mooy geste bi njëkk booy xool ndax da ngay aar sa bopp aar ki ngay waxal te njàng ak njàngale dafa laaj essence muy ci kiy jàngale wala kiy sàkku xam-xam kon masque bi dafa ñëw à ñuy profité ci sunu tur en tant que institution euh, sant leen ci gërëm leen ci mais aussi wax na préfet moom mooy suñu kilifa daanaka mënoon na yóbbaale suñu kàddu ñuy sant ñi ci dugal seen loxo yëpp comme ni ko président waxee l'honorable Fat Sène ak ñi ci àndal ñi ay partenaire ñu ngi leen di tàllal suñu loxo fu mu toll di leen wax ne lii benn la ci benn jéego ñu ngi leen di xaar ci yeneen i jéego ngeen jàppale ñu ñun en tant que institution yor njàng mi nga xam ne nag bu ne njàng moo yorum réew ndax njàng moom ëllëg xale yi ñooy nar jiite ji réew mi te réew mi incha allah bëgg nañ ku koy jiite rek sa loxo set nga mën a mel ni njiit yi nu am fan yi di njiit yu seen loxo set yuy déglu askan wi di leen jàppale fu nu toll rawatina njàngale nga xam ne mosuñu ko tàngamlu benn yoon di ci dugal ay fonds yu bëri jamono yi état mu ngi ci loolu ñu nekkal ko fi nelawum guddeeg bëccëg pour fas rek xale yi delluwaat ci classe yi te benn jafe-jafe te nu am benn te nu mucc ci jàngoro ji nga xam ne combat ñëpp la comme ni nga di santaat bu baax ci kàddu yi di gërëm ñëpp ci turu inspecteur départemental Papa Amadou Sidibé ñu ngi leen di remercier bu baax initiative bi jërëjëf au nom de l'IEF inspecteur départemental donc comme ni ko madame le préfet madame la comté comme ni ko waxee sànq rek président waaw ñu koy gërëm au passage sant ah, ñaan ko yàlla parce que ngaay su neexee nga nee tax parce que soo jëlee département Bambey dafa doon partie ak yaakaar nii di bëgg a wax jox wala sa kaw ko yu wóor Bamba it wala seen bopp waaye wala seen bopp lu jiitu luy béy Faat seen wax na ko dañ ko sant gërëm ko parce que taxawaayam ci Bamba yi taxawaayam ci département bi ñëpp a ko gërëm ñëpp a ko sant jara tàcc la ko xam ne jigéen ñi kii ñu bëgg a jox kàddu gi nag la coordinatrice Faat seen li ci wax doy na sëkk Faat seen laa déjà présenté yaa bu fenn dafa sagal jigéen parce que maire la ca Gawane Kër Mbir. dëgg la la maire nekk au conseil des collectivités nekk nag responsable ci parti waaye jigéen ñi koor yebu ko. di nit ku baax ku amul taalibe sëñ Maam Mor Mbacke mi borom Gawane tey jii gërëm ko sant ko waa Gawane yëpp gërëm ko ñu tax ci bu baax a baax yàq kan bàyyi ko yàq kan bëgg wax kenn kan. kontradiction madame Gueye Fatou Diané di nuyuwaat madame Mbaye mi nga xam ne tey mu ngi nekk tey HCCT nekk tey contractrice Mbacké ak sa équipe bi nga àndal yëpp ma di ci ràññeewaat madame Mbacké may nuyuwaat itam yaa xadi boobu bu Sambé nekk ci suñu coordinatrice départementale di madame ma di ko nuyu li may jëkkee nag dañuy gërëm ministre de la femme ci initiative bi nga xam ne tey la def ndax def na ndax aal jigéen ñi ak jigéen ñeetim booloo seen bopp joxante seen loxo pour mën liggéey liggéey boo xam ne bii ñun ñu ci sant ñu ci bi mu ñu tànnalee madame Gueye Fatou Diallo madame Gueye nekkoon na sax avant ko ndey tali di tànn tey mu nekkoon koo xam kii tey ñun jigéen ñëpp ñoo ko doon xool suñu bët di ko xool ci lu muy liggéey ah di ko xool itam ci lépp loo xam ne moom lay def ci lu baax ba ñun ñëpp ñu soxla woon koo gis soxla def moom soxla liggéey moom yàlla def ministre andi ko tegal ñu ko ci région coordinatrice régionale coordinatrice régionale bi nag bu ko defee madame Guèye mii dafa woo jigéen ñëpp ne apporté man bi may woo keroog une heure du la ma woo bi ma wooyee ni ma mën a Fatou Diané dama tëb ci ba tëb ma taxaw ni ko ban Fatou ma mën la Fatou lool nag ci loolu nga xam ne tey jigéen ñi daal di sant Pape Sène mi ne ko tànn tànn bi sax tànn tëgul rek ne Pape Sène ma proposé Pape Sène bi ko proposé jëpp adhéré ñëpp adhéré jigéen yi dugg ci audio bi ku nekk daal di taxaw adhéré ci li moom mii ndam mu santaat Pape ko wool jigéen ñëpp te wool jigéen ñëpp numéro bu ko Pape jox dugal na ko ci audio yi dugal na ko ci groupe WhatsApp ba jigéen jooja man di wax ci région ñu bare ci taxaw fii ña ngi wax ci région ñu taxaw fii ci département mu ubbil ñu benn groupe WhatsApp bu département bokk ci moom li ñu wax mu dégg mu dellu ubbil Mbàkke ubbil mu doon loo xam ne yi waa Jurbel mën nañu waxtaan seen biir waa Bambey mën a waxtaan ñu mën waxtaan kon loolu ñun tam ñu ngi la ciy sant ci initiative ndax loola ministre sant la yow yaa ko xool créé ko defal ko sa bopp ñooy waxtaan ku nekk di dégg sa morom ku nekk di wax kon ñoo ngi sant madame Diall madame euh, Guèye Fatou Diall sant naan la bu baax a baax a baax parce que ku nekk yaa ngi toog fi nga toog ñëpp a xam ne mbas mi daje amul waaye ku nekk am nga information ñu bare fii ñu ngi nii di dugg kon sant naan la te ni nga ko sant woon Fatou mu defee ko noonu kon sant naan la ba yéegal ko noonu dinañ yéegal sant sama bu baax a baax kontaan sa ñu dem nag ba collecté bii madame Mbaye mii jëkk a ak madame Mbaye waaw moom mii mu ànd ak équipe def nga def yóbbu fa la def jox ko ba mu demee xoolul lu Bambey indi xoolul Mbàkke xoolul dara ñuy gërëmaat ñenn bay ndax mënoon nga ko de maa fule Bambey waaye dangaa dangaa taxaw nangu li mu wax mu séddale yëpp ñëpp yamal ñëpp la yam amul kii amul kaa ni ku nekk na la wàccee sa département ngeen taxaw fi ba digal ak kon xam nga ni kon ñun waa Bam yi dañu lay sant di sant waa Mbacke sant waa Diourbel rafetlu nañ ne li ngeen di def ndax wàccee ngeen mas bi wax dëgg yàlla yëpp rafet kon sant naa leen rek moo xawoon am jël mooy information bi dafa wàccul ni mu war a wàcc ñi ko waroon yëpp dafa des loolu rek moo ci desul nde maanaam euh, siiwul torop ci département bi waaye xam naa ne sax seen day continuer te bu ñu jógee fii ku nekk loo amaat ci nga ko yóbbu toog pour mu continuer waat liggéey dina continuer liggéey bi dina ko continuer euh, def du soobee ndax yamul fii ndax am nañu ko yóbbu woon kontaan nañ ci torop préfet ñu lay sàll di la jéggaluwaat ci retard bi ak naaj bi ak tàngaay bi jërëjëf. merci Adja Yatou Sène donc nous allons à présent dañu jox kàddu gi ki nga xam ne kii moom lañu teg mooy la coordination départementale de Bambey ànd ak yàkkoon ni ñu indi ñëpp ñëw ci kanamam ñëw seen barkalla mën boppam waaye ci bopp Bambey ci bopp jigéen ñi ngeen teg ko seen na du riir boroomam néew néew te ko liggéey moo waru ñam yaa ngi liggéey te bañ a tay ci mim réew wajala maay ma maasa kuma rakuma ba maasa kuma rakuma wajata ala gayna ko

damay nangu di delloo ko. dëgg la déglu leen baara ba fii. fi nga taxaw rek ngay taxaw. bi lay la si laa woon. xëy na lu ma du dee yéen. mais man ñu ngi xaar ma doon di toog. ma doon di laa xaar ma doon di toog. waaw mais nag ñu liggéey nag. yaa ngi ci chance Malick. waaw. barke Rasulullah. Fat Seen. ñu déglu ñu déglu. bokk région de Diourbel bokk département de Bambey maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jël nuyoo bi di ci jiital madame la préfet di ko jéggalu ci heure ko jéggalu ci jour bi itam ndax kenn ku nekk xam ne tey samedi la mu bàyyi yëppam ñoo taxawu ñu taxawu loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ko baax a baax a baax ndax kenn ku nekk xam ne ne weekend la ngeen ku nekk da ngay dem ci sa ji waaye xam na ne jigéen ñaa soxla tey. Mhm. moo fi jógee ma nuyu coordonnatrice départementale ñu ngi wax Fatou Diané euh, madame Guèye moom it mu ñëw am taxawaay bu rafet comme ni ma ko waxee woon sànq parce du doy ndax nag dëgg yàlla amuñu sa fay ñu ngi sant madame la ministre bu baax a baax a baax ñu ñu la tànnalee. lay ndeysaan di gërëm tam Nenna Ndiaye coordonnatrice région départementale bu Mbacké. di ko jox wàccuwaayam di sant la presse di sant ñi nga xamante ne ñu comme ni ma ko waxee woon léegi liggéey bi bi ma essayé Fatou woo les douze maires comme ni ma kenn ku nekk dama jox point kenn ku nekk jox na ma benn groupe commencé liggéey bi responsable yi am na ci ëpp ñu dëkk Bambey joxe nañ monsieur le maire de la commune na kon maire yëpp jox ñëw nañu muy les douze maires ndax ñun fukki maire ak ñaar la am te kenn ku ne joxe na sa participation ñi nga xam ay responsable politique lañu dëkk ci dëkk bi tamit nga xamné ay kilifa lañu ci dëkk bi am nañu joo xamné joxalé sen participation kon lañuy sant ñëpp di gëreem ñëpp ndax comme ni ko olof yi di léebee nga matale wul suuf waye sant nañ leen ci geste bu ñu def madame le préfet donc collecte bu comme ni ma ko waxee woon léegi mu ngi nonu def nañ ko au niveau régional def nañ ko au niveau départemental kenn ku nekk jàpp waye nak mënu ñoo ñak sant ñi nga xamantene dañ ci jàpp ndax amna ay bonne volonté yoo xam ne ci dëkk bi dañ dëkk ay doomu dëkk bi joxe nañ seen participation te bokk ci dëkk bi am na ñoo xam ne ay ay jigéen lañu ndax jigéen ñi nga gis sama ginnaaw am na li ci wax ñu bokk ci panel bi ñëpp kenn ku nekk collecté nga sa fukk ay masque ñëw jàpp ci liggéey bi kon bu ñu limee dañuy juum bala ñu fàtte ne képp kuy jigéen sant nañu leen gërëm nañu leen ndax aji aw seen moom moom ñu joxe sans masque ci panel bi donc ñeneen ñi ci des ñëpp ñëw nañu kenn ku nekk joxe nga say masque kon su sant jotee nañ sant ñëpp nañu gërëm ñëpp muy xale yi muy mag ñi muy ndaw ñi tey daal ñun amuñu kàddu dañuy sant sant la ñuy def département de Bambey waaye di sant coordonnateur départemental nga xam ne moom moo jiite euh, xëy na maire commune yi muy Mor ñu teg ko ci loxo monsieur le ministre ñu jàllaleen ñu ko ci yeneen maire yi ndax maire yëpp kenn ku nekk doolu solo kon ñu ngi sant ndaw ñi ñu ngi sant mag ñi ñu ngi sant góor ñu ngi sant jigéen a mais lii lañ la ne muy yar macha allah ak dal ak tey kon yàlla la yàlla jàppale kon tey aw kàddu Fatou Fatou kàddu bi yaa ko moom kon kaay jël ko fi ci Bambey. ndeysaan baa ngi lu rafet donc jigéen ñi ngeen gis fii dama dama mënu ma ñàkk lim parce que am na ci ñu nga xam ne ñu sama ginnaaw jéego ci ay gox goxaan te mënu ma leen ñàkk tudd ngeen jéggal ma ko rek xam naa ne nag du gàtt du gàtt du du yeex ki ci jiitu mooy honorable maire Khady Bob nga xam ne mu ngi dëkk ci Sambé sama yaay sama xarit lépp a ci koy beral cantam waaye maa ngi sant itam bu baax a baax a baax ajaratu may mën a jàll sama ginnaaw ah. ajaratu ay dokwaate ajaratu awa seen Diop mm-hmm. ajaratu Budi uh, Baas mm-hmm. ajaratu Khady Ñing mm-hmm. ajaratu uh, honorable député bu songom uh, bajjenu gox départemental ku lim di nga juum baa nga fàtte madame Ndiaye Asmaw ak xale jigéen les amazones maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax li ma collecté yëpp yéen a ko jëli li ci ëpp yéen a ko liggéey kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama alaaji bu rafet bi eh. nag ah, su ngaay nag mexey moo tax ah, parce que su ma mënee génn di wàcc sama ay njaboot di dem di politique wala may wàcc sama njaboot dem di collecté ji ay masque moom ma ko may kon de sa korowal ma moo kan bi ge ci la jekku lay mën xaw ma ko de donc à présent madame le préfet ah, ñu ngi jëbal kaddu gi la présidente de la madame Guèye bu baax nga xam ne moo jàppale boppam jàppale mi yéen a jege mooy Fatou Diagne kii ko na sa maam fat jaane ah. madam jeey ah. eh, mas rey sa jeey sab maam Fatim ale biram fen daf maa yaay la sukaabe daf meeli Kajoor ak Bawal bax yàgg na lool yaa di ka xeex corona virus mu def nee naa leen fat jaane fat jaane door na ko kanu fat yaay lay ah. fat jaane mën naa dégg Moustapha jàppale yàgg dégg daali a doon góor waaye mën sa ñàkk maa ngi daa baax borom këram baax moo tax mu demee nii waaw waaw barke sëñ Bamba maa leen nuyu di jéggalu sax ci kàddu gi ma jël ci yéen ndax da ngeen a bokk ci ñun nag boo leen di wax dañ war a déglu waaye tey dañoo am mbégte am kontaante tey am wax dëgg yàlla lu yëg muy kersa gu ñu am ndax autorité bi taxaw mhm. ñu téye ko ci naaj bi ñu téye ko ci biti lépp mu def ko rek ngir yëg gu mu yëg jigéen ñi moo tax ma ñaan leen kàddu gi rek ngeen may leen ma rek ma wax ak moom ndax xam naa ne yeneen occasion dinañ am bu soobee yàlla ñu gën koo yaatal ma leen di sant di sant madame le préfet sama ñëw yëpp bii dama cee gën a neex ndax dama fekk préfet di

yàlla moo ñu boole ndax kenn présenté ma Fatou Sène waaye yàlla daa boole ñaar ñoo xamante dañoo bokk bëgg-bëgg muy développement. dëgg la ak yitte askan bi. yàlla boole ñu ci loolu ñu ci dox ba ma ko xamee ba léegi ñu àgg loolu góor bi feebar bi ñëwee nday sali comprendre l'appel du président mi ni na ñëpp dem à la solidarité national pour que ñu xeex ndax xam na ne xeex bi xeexu communauté la. Mhm. xeexu solidarité la nday sali comprendre message bi. daal ñuy sas nag dinañu dem ñu dajale li ñu am ñu dem contribuer ko kon lii ñu lay indi tey waa Bambey ñoo ko dajale waa Bambey ñoo dajale seen doole jigéenu Bambey yi mm-hmm. takku ànd ak honorable parcelle ba am lii ñu am pour ñëw jébbal la ko ci turu Ndeye Saly Diop Dieng mais jébbal ko ci turu président la République bi nga incarné mm-hmm. donc madame le préfet kaddu yu du gudd damay sant rek encore le gouverneur de la région parce que ci moom lañ jógee léegi

sama sama voix maa ngi leen di yox santu ak gërëmu tay Sali job Dieng mhm. mi nga xamanteni moma yabal tay mu ñew and ak yéen di liggéey bi mhm. neena sant na leen gis na sen mobilisation gis na sen engagement xamone nako nak ndax neena ma ku dëkk Bawol jambaal ci jigéen ñun maam jaar bu sa mooy suñu royukaay te kooku ku nekk royukaay jàmbaar ngay doon ci waar du ñu a manqué à l' appel de ñu mus a manqué à de la société du ñu mus parce que fu ñu toll dañuy wane ni jigéen ñi ñoo jare jiital te ñoom la ñu jiital sant nañ leen gërëm nañ leen les donateurs Fatou Sène xam na ko sant nañ ñëpp le ministre moom Ngom dama koy beral cant ndax moom laa njëkk a woo wax ko liggéey bi mu ne ma dinaa ci taxaw te taxaw na ci. les maires des communes bu ma ci ñëwaat en tout cas madame le préfet bagage yaa ngoog dañu santoon liggéey liggéey nañ ko dërëm ak ñaar dërëm waa Bambe yi boole nañ ko jënd nañ ci suñu masque ñëw tegal la ko 20 000 masques lañ indi tey Bambe am na 500 masques chirurgical yu mooy façon bi ma takk nga xamante ni ku xam masque yooyu xam ne mooy masque de qualité bari lewuñ ci waaye cëral nañ ba ku ne am ci la a am boole kook ay masques recyclables naa bu ñu ko tasaaree ci dëkk bi Je encore et je félicite. je pense que Djourbel, c'est pareil en français on est venu aujourd'hui remettre le quota de Bambey après la collecte nationale réalisée au niveau de Djourbel. La collecte régionale, 120 000 masques ont été collectés au niveau de la région de Djourbel. Les, quatre, les trois départements confondus. Le département de Bambay a contribué, le département de Mbaké a contribué et le département de Djourbel également. La, totalité fait 112 000, 120 000 masques pour un objectif de 110 000 que Naïsali Diobien nous avait fixé. Donc, à l'issue de ce travail-là, on a alloué des quotas. Bambay a reçu son quota de 20 000 masques et aujourd'hui on est venu remettre à l'autorité administrative qui incarne la République aujourd'hui, qui incarne le ministre Laïsali Diobien. Et fort heureusement, c'est une dame qu'on retrouve ici comme préfet de la, de la, de la, du département de Bambay. Et donc c'est une fierté de venir remettre la contribution des femmes dans la lutte contre la COVID-19 pour participer à l'effort national de guerre pour combattre le coronavirus. Donc, Madame le Préfet, on est venu aujourd'hui pour remettre l'effort des femmes, mais l'effort des Bambéoises pour la lutte contre le Covid. Ces 20 000 masques, ce n'est pas assez. Mais comme je l'ai dit à Jouvel, c'est juste au début du commencement. Les femmes sont mobilisées et pour la première fois dans l'histoire, toutes les femmes sans obédience, sans appartenance, sans partisane. Toutes les femmes, je dis vraiment toutes les, tous les leaders femmes de la région se sont réunies pour répondre à, l'essentiel qui est l'appel du président pour la solidarité nationale pour la lutte contre le Covid. Mhm. Donc vraiment l'eau, le préfet encore merci beaucoup. Celle qu'on va donner la parole aujourd'hui, madame la coordinatrice. C'est ici que j'ai pris ma retraite, ici à la préfecture. Ah, Mais cette femme, qui est l'adjoint au préfet, madame le préfet du département de Bambay, mhm. elle est très efficace mhm. dans l'exercice de ses fonctions. Elle est pragmatique, mhm. elle est efficiente, elle est magnanime à l'endroit de la population du département de Bambay. Notamment tous les responsables, les autorités administratives, en nos mots. tout s'appelle Voilà une femme qui est correcte jigéen ju baax ngi nii jigéen yaraw ngi madame la coordinatrice régionale j'en profite nag pour vous remercier et remercier votre cher époux Moutafa Gueye le directeur du club qui est en train de faire des très kooku tàccu leen waay remercie par devers vous par votre biais madame la coordinatrice Fatou Sène votre conseil des collectivités territoriales Madame le maire Voilà ce que je voulais dire en tant que communicateur traditionnel. Et quel est le rôle d'un communicateur traditionnel, Madame la Nous devons être des acteurs de développement. Nous devons être de bons euh, vecteurs de développement pour vulgariser toutes les bonnes actions que vous, les femmes, les femmes d'hier, de Yacine Boubou, de Ndjambon Mboj, d'Alun Cité Ce que vous êtes en train de faire pour les populations, notamment les jeunesse. Merci encore une fois madame le préfet je vous remercie je remercie tout le monde. madame le préfet yal na sa jàmm yàgg. bu baax a ngi nii de. de yaru. après avoir remercié la coordination générale pour ainsi que les coordinateurs départementaux, surtout aussi euh, l'équipe qui les accompagne. On a vu que plusieurs femmes vers la région les accompagnent pour la mise en œuvre du programme Une femme, une fille, un masque. Euh, j'aimerais aussi remercier, pour ce qui nous concerne, les femmes du département de Guatemala. Parce que comme l'a dit tantôt euh, la coordonnatrice régionale, nous avons vu leur engagement, leur abnégation, de l'aide politique aux citoyens lambda, tout le monde a participé dans cet effort de Cela témoigne le dynamisme extraordinaire communautaire qui anime le département de Bambé. Donc nous vous remercions. Nous vous remercions de nous avoir offert gracieusement ce lot de masques, 20 000 masques de beaucoup. Nous avons la chance, nous encore, le département de Bambé, de n'avoir pas encore enregistré de cas, euh, euh, de cas positifs. Donc cette, ce de masques, cette dotation permettra d'augmenter la prévention ici au niveau du, département de Bombay. Nous pouvons vous remercier. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Nous allons surtout vous remercier. Et, en tout, encore, vous, lancez un appel. Lors de la distribution, Madame la coordinatrice régionale, de prioriser la sensibilisation. Il faut distribuer certes les femmes du département de Bombay sont très conscientes des risques de cette maladie. Mais toutefois, la répétition est pédagogique. Il surtout continuer à sensibiliser, continuer à toucher leur corps de sens et à leur faire prendre conscience du danger de cette maladie. Donc, nous vous remercions. Euh, les femmes d'ici et les femmes d'ailleurs, en faisant référence aux autres départements de nous le remercions aussi euh, d'avoir euh, participé à cet appel à travers euh, le programme conduit par le ministre de, la Femme. Donc, à cet appel lancé par le chef de l'État et son gouvernement pour participer à l'économie, à la solidarité nationale, pour venir en aide aux populations. Nous, Ah, voilà. Tant daaw mu am li ci topp te gis nañ mobilisation bi ko bu baax li ci baral na fa nag ah waa Bambey waaw ndaxte ñun Bambey lañ dëkk waa Bambey Bambey lañ bokk di remercier waa Bambey gis nañ nag seen taxawaay jigéen moom ay jigéenu jàmbaar la dëgg fa neex yàlla mobiliser seen juróom dugal si seen fukki dërëm rek pour indi ñu loo euh, masque bi nga xamante ni 20 la dëgg fa neex yàlla ñu ngi leen di remercier bu jàppale jigéenu Bambey

naaj bi tàng na. waaye euh, gis nañ ni que vraiment euh, coronavirus bi daf ngeen ko seen seen seen seen personnel te mu ngi feeñ ci yéen donc merci beaucoup nga wax ne waaw c'est ça waaw mobilisation. gouvernement euh, à travers le ministre euh, ministère de la santé y une mesure mesures qui war a respecté xanaa rek ñu yokk sensibilisation bi a population bi top mesure mesures euh, par le ministre de la santé